ravi de vous retrouver amis fidèles internautes Sénégo Kawtef ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di kontaan bu baax a baax saa si nekk ànd bi ñuy ànd ak yéen si suñu différentes plateformes tey nag bala ñu gisee euh, décor bu yanj bi ñu ngi fi nga xamante ne mooy King Fat Palace fa seene teewee li nga xamante ne rek moom mooy dîner de gala ki koy organiser nag ak ku waral bis bi du kenn ku dul la reine du Jolof ban mooy rek ki nga xamante ne mooy Viviane anniversaire defoon na nag li nga xamante ne moom mooy première partie am fële euh, ànd ceeg xale yi mu def buzz ak sañseem ak jiinam ak ah ak li nga xamante ne moom la ay wayam macha allah ak nu mu neexee tey nag mag ñi ñoo ay ñoo ñoo fas yéene ko ñëw seet si fas yéene waxtaan ak moom souhaité ko joyeux anniversaire tey jii si premier octobre fii si King Fahd Place ma ànd seeg na bédi saa su nekk comme ni ngeen ko gisee décor bi invité yaa ngi ñëw nànk-nànk donc dañu daal doxantu rek gisanteeg nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk waxtaan ak ñoom laaj leen lan moo waral seen teewaay si bés bi waaye rek décortiquer li nga xamante ne mooy seen i sañse fii si King Fahd Palace lay xewe bee dañuy daal di dem rek si kanam ñu xool ah comme ni ñi dañoo def robe ñu ne dañuy def robe bu direeku nànk rek xool gars yi waxtaan ak ñoom ah gis ngeen organisation bi euh, nu mu nu mu doxee macha allah amul lenn li nga xamante ne gis nañ ko fi comme comme comme faay lépp jaana si yoon ah juste rek rek li nga xamante ne moom mooy journaliste yi amaguñu accès si li nga xamante ne moom mooy si biir salle bi pour wan leen décor bi wan leen li nga xamante ne tey jii moo fi ñëw si comme euh, célébrité comme ay personnalité publique euh, donc nag xëy na si kanam tuuti incha allah dinañ accéder si biir salle bi bu ko defee rek comme li ñu fi indi saa yéen ñi toog seen i biir kër yor seen i connexion di scotché euh, kawteef fa Sénégal ngeen mën a xam euh, li nga xamante ne moo fi am waaye rek ngeen mën a dund itam euh, soirée bi comme ñi fi nekk nuñ koy dundee donc dañuy daal di dem béy di ñu xool sañse yi rek bu sañse yi ñëwee ah ñun moom <laughs> bu ñu teree dugg it wala ñu xaarloo ñu dañuy daal di xor rek si alentour yi ah xëcc gars yi surqu waxtaan ak ñoom. ah seen naa fi ay ndeygéey gis naa ne euh, suñu suñu suñu yaay suñu maam so de bu soo gis ngeen ne Zeyna Ndour ah mu ngi nii nag moom tamit macha allah def robbam ah di di di tàq ba yàq comme niñ koy waxee comme ni ko xale yi di waxee ah mu ngi def euh, li nga xamante ne rek ànd ak benn xale bu jigéen itam ah macha allah xool leen rob bi dama leen di bàyyi ngeen ngeen décortiquer rob bi yéen seen bopp ah avec des perles macha allah. très jolie ah très belle très classe macha allah ni ko ni ñi bëggee daal noonu noonu la ko defee. vraiment nice na mu def benn euh, coupe euh, cheveux bu bu boo xamante ne bu tendance la avec des couleurs et tout. donc euh, nii rek la comme ni mu ko defee moom mi nga xamante ne moom mooy euh, doom si kii di euh, Viviane Ndour noonu la ko invité yi tamit di defee parce que nag dina am ambiance dina neex waaye tamit sañse yi si lañu bokk voilà gis ngeen macha allah. bilaay xale bi <laughs> voilà euh, comme ngeen ko gisee amee internet euh, Sénégo Kawtef euh, macha allah gis ngeen li nga xamante ne moom moo fi tege chaise ngi si biir am na déco ah nekk style ki nga xamante ne mooy la reine du Djolof Ban di Viviane Chidid macha allah la star planétaire nga xamante ni kenn dootu ko présenté dafa mel ni nag bis bu ñëwee fii lañ ko nar teg daal di koy rek yóbbu si biir mu doon effet surprise ñi nga xamante ne ñoom ñooy invité yi si biir li nga xamante ne moom mooy mbir mi gis nga nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk retour euh, si euh, chaise royale bi nga xamante ne moom moo teg ni dañ koy doon wax léegi ñoom nag ñu ngi euh, def comme genre cagoule ah def seen caaya en noir def seen faaru mbaam comme dañ koy waxee ah indiwaat demb rek fas yéene ko rek accompagner ki nga xamante ne mooy la reine du Djolof Van tey nag moom façon style bu nekk ngeen fi ngeen fii gis oh, nee naa leen dafa woote demb ak tey ñëw indi ko rien que pour faire plaisir au Sénégalais rien que pour faire plaisir à euh, ses fans donc nag dañuy xaar rek euh, tuuti bu ko defee mu daal di agsi ñu décortiquer li nga xamante ni moom mooy euh, sañseem ayca Euh, kawteef Sénégal comme ni nga ko gisee nag euh, bus baa ngi noonu mu ngi mel ne nag ki nga xamante ne mooy la reine du Jolof baan moo nekk ci biir euh, gis ngeen DJ Bobsu moom nga xamante ne saa su nekk rek événement yu mag yi kenn dootu ko si laajte ah li snapper ñaaxarañ looy itam si événement yu mag yi Moussa Versailles le grand styliste moom itam mu ngi fi ah gis ngeen ñi nga xamante ñoom ñoo fas yéene rek nekk si ginnaaw Viviane Chidid Ndour ñoom ñëpp rek ñu ngi fi rek ngir Euh, daal di koy accompagner pour rek euh, deux ans yi nga xamante ne mu ngi koy fête si euh, carrière am donc nag gis ngeen si kanamu bus bi béy di am na liñ fa sotti comme ndox et xamuñu nag lu mu doon mais en tout cas daal ndox la. donc nag mu ngi noonu loolu lépp rek ngir indi jàmm ak salaam la bu ko defee rek mbir mi daal di neex nee naa la fi ñu toll nii rek. Euh, waxtu mi mu ngi toll si une heure euh, li nga xamante ne mooy salle bi fees na dell ba sax am na ñi nga xamante ne amuñu sax fu ñu toog ngir rek ñu mën a assister li nga xamante ni moom mooy euh, lii di Euh, dîner de gala bi euh, Viviane Chidid euh, organisé si 22 ans de carrière am gis ngeen témoignage yi nga xamante ne def nañ ko si jour anniversaire am gis ngeen tamit tey témoignage yu invité yi def ah ñaaxarañ loolu grand snapper mu ngi noonu ah macha allah événement yu mag yi kenn du ko si ne lu tax doo si ñëw ndax ay mbiram la voilà donc nag la reine du Djolof Ban mu ngi mu ngi si biir. Euh, comme ni ma leen ko waxee euh, dans quelques instants wax na wàcc ñu daal di koy xool premièrement internet yi sañse bi la ñuy wër bu ñu gisee Moussa Versailles nag euh, dinañ xam ne nar naa sàjj macha allah nar naa sañse ay invité moom macha allah sañse nañu comme ni nga ko gisee si li nga xamante ni moom mooy image yi donc dañuy xaar rek ki nga xamante mooy la reine du Jolof baan mu wàcc. ñu waxtaan ak moom saafonte ak moom suñu ko permettre waaye rek décortiquer leen li nga xamante ne moom mooy euh, sañseem rek euh, si jour bi nga xamante ni euh, def na ko rek ngir ay fansam waaye rek ngir ñi nga xamante ñoom ñooy andi jàmmam voilà. voilà comme ni ngeen ko gisee nag ma leen ko doon wax léegi lu ñu gën nekk a frappé rek si Viviane Chidid Ndour si sañseem déjà mu ngi noonu ngeen ko gis si biir euh, bus bi wàccagul ba tey ah euh, ñuy rek rek def rek li nga xamooy mooy dernier réglage pour rek mu mun a wàcc ñëw euh, saafonte ak li nga xamante ne ñoom ñooy. fan si waaye rek fas yéene bégal comme ni mu koy faral di defee rek saa su nekk donc nag gis ngeen gant noir la woote. ah gant noir nga xamante ne euh, Beyoncé nga koy gis ah wala nga gis ko si euh, Rihanna wala ñeneen ñi tey dafa dafa ñëw rek def. Euh, al l'américaine comme ñu koy waxee nee leen saa su nekk rek chaque jour day yokk li nga xamante ne moom mooy level bi du mës a wàcc bijou wax na ko léegi nii tonton bijou tantôt bijou Ndiaye donc level bi saa su ne da koy yëkkati ah bu ñu décortiquer nag si liñ jotagu mu gis mu ngi def li nga xamante ne moom mooy make-up bu soft ah mais rek bu brillant ah Moussa Versailles moo taxaw noonu nag euh, comme ni nga koy gisee saa su nekk moom mooy génn si li nga xamante ne moom lay sol mu def coupe carré nga xamante ne euh, été moo tax ñu koy ñu koy def coupe carré la def euh, feu bu blonde euh, ngir rek jouer couleur yi mu ñëw ànd ak teint caramelam bu mu yor euh, ñu teg rek li nga xamante ni moom mooy ay chaîne ah xaw ma ñu nag kan la ci yeew <laughs> mais nag def na ay chaîne si loxo yi croisé ko si si si si si li nga xamante ni mooy cou bi def benn eau ou robe xamuñu lan moo nekk ba tey si suuf Euh, mu xaw a fondu noonu waaye rek euh, Boubs itam yëg na di DJ Boubs mu ngi noonu jox na ko micro donc dafa mel ni rek day waaj a wàcc ah, ñu daal di xool rek ba tey li nga xamante ne moom lay moom lay moom la fas yéene euh, sañse ah, ñu xool ko voilà ay Aïcha ñu voilà voilà ni ngeen ko gisee actuellement Viviane Chidid mu ngi noonu nag la reine di Jolof Ban ah, def li nga xamante ne moom mooy robe ah, fa la ko Moussa Versailles génnee tey euh, def chaîne def gant noir nga xamante ne moom moo njëkk a attiré ah, macha allah euh, def euh, li nga xamante ni rek moom mooy robe cintré si suuf mu kii mu mu am volant mu ngi mel ni rek que dafa nar a yéeg si li nga xamante ni moom mooy chaise buñ leen doon wax ñu fas yéene ko nuñ koy waxee si bañ temps nekk xale rek nguufaan. dañ koy daal di nguufaan rek fas yéene ko yóbbu mu accéder si biir salle bi mu doon surprise si ñi nga xamante ne mooy invité mi waaye rek si ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay nitam ay fansam ah euh, vraiment euh, elle a frappé encore fort si li nga xamante ne moom mooy sañse ah, en compagnie de Moussa euh, Versailles saa su nekk da koy solal loo nga xamante ne macha allah donc ba tey gis ngeen Moussa Versailles moo nekk noonu si wetam di. ko tegal di ko defaral li nga xamante ne rek moom mooy xobbam une robe noire tout noir rek chaîne dorée gants noirs donc nag make-up soft et brillant donc nag moom la daal di def macha allah rien à dire macha allah rien à dire sañse bi sañse bi rafet na voilà mu ngi noonu. gis ngeen ngeen mu ngi toog noonu ci fauteuil bi nag macha allah di rek euh, waajal accéder ci biir salle bi pour rek faire plaisir à ses invités mais aussi faire plaisir à ses fan comme ni ngeen ko gisee macha allah donc mu mel ni ne rek dañ ko fas yéene nguufaan ah daal di koy dugal fi nga xamante ni moom mooy ci biir euh, salle bi ah. voilà dégg ngeen Ndeye Gueye mu ngi doon nee na Viviane mooy Wally Seck bu jigéen voilà moo ko sañ <laughs> moo ko sañ dégg ngeen bu mu def euh, si ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Viviane donc euh, macha allah. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nag écarté nit ñi nga xamante ñoo fi nekk ngir rek ñu mën a yombal liggéey bi yombal ki nga xamante ne moom mooy euh, liggéeyu kii di la reine du Jalaaf Baan wuy ma comme ni ngeen koy gisee DJ Boubs mu ngi joxe signal pour que mu mën a ñëw voilà joxe nañ signal pour que ñu mën koo nguufaan. ngir rek mu mën a ñëw voilà kon bokk ñu ngi daal di avancer ngir accéder eh, fi nga xamante ne moom mooy si eh, salle bi la reine du Jolof Ban mu ngi mu ngi dugg si la reine du Jolof Ban mu ngi dugg si ñi nga xamante ne ñoom ñoo sol seeni caaya noir faru mbaam bu weer def seen kagul ñoo fas yéene rek eh, xëy dugal nànk-nànk waaye rek ki nga xamante ne tamit moom mooy ñaari xale yu jigéen yu def cosaan ñoom itam ñu ngi euh, taxaw accompagner ki nga xamante mooy la reine du Djolof indi démb rek la ñëw def ngir rek entrée bu bu neex entrée bu ordinaire waaye rek pour une soirée inédite rek euh, nit ñi mën se savourer gis ngeen def na ay dàllam def li nga xamante ne mooy robe noire macha allah voilà donc euh, c'est c'est c'est quelque chose de très joli. kenn dootul waxati Viviane ndax kenn du ne guléet ndax mënanam la euh, gis ngeen ko noonu en image sañseeti na daal sàjjati na comme niñ koy waxee du ñàkk nag si biir incha allah dina doon loo xamante ne lu extraordinaire lay doon voilà mu ngi dugg si kanam rek incha allah ñu daal di leen ni wan ambiance bi nga xamante ne moom moo fii nara daal di am fii si King Fahd euh, Place